Kouthia. waaw ah, kay mbaa dérangé wu ma la. déedéet d' abord dama la mettre en main libre. dama toog ak ñaari taskatu xabaar ma ne leen ni journalistes yi amee solidarité de corps politiciens yi am solidarité de corps syndicalistes yi am solidarité de corps waa Jamra dañu am solidarité de corps ndax Kouthia membre la ci Jamra ñu ngi nii di ma dégg di la dégg sànq dama leen wan sa photo ma leen Kouthia dugg na Jamra te ñun amuñu payam ndax bi Jakarta lëmbalee réew mi ma bindalee président de la république yëf yi ne këcc rek ñi di ko jaay ci école yi cent franc xale yi di ko naan di mandi yow laa seetsi yaa ñu defal benn clip gratuitement dërëm laa jooñu ko nga lancé benn alerte Macky Sall daa di woo Aliou Sarr qui était à l'époque le ministre du commerce jox ko ndigal <clears throat> ne Jamra def na ay analyse de laboratoire ndekete euh, Jakarta bi ñuy jaay ci école yi dafa am alcool Aliou Sarr daal di def benn euh, arrêté ministériel date ba duma ko fàtte mukk en date du 18 septembre 2015 interdire sur l'étendue du territoire national lépp luy Jakarta salañ salañ ak namp bi mën na leen Kouthia moo liggéey loolu kon Kouthia bu nekkoon ca diggu jaxanama sax ñuy waaju ubbi buntu jaxanama di ko fa dugal sax Jamra na ñëw laxasu si tànkam ànd ak moom dugg sa jaxanama alors ma ne kon nag euh, amul euh, doomu aadama bu dul am nattu te Sénégal dafa am nu mu bindoo léeg-léeg da ngay wax ak koo wóolu koo wóolu xam nga doo ko nëbb sa dara say xalaat say crainte te ñun ñëpp kenn mu ci si man mii di wax ak yow léeg-léeg ma woo waa euh, imaam Massamba Diop imaam la de di am ku may jow daa waaw kii de xoolal ma li mu def démb rek ñëpp ñëpp a koy def waaye le problème mooy léeg-léeg da ngay wax ak sa homme de confiance wala une femme de confiance mu enregistré la et c'est lâche alors ma ne leen natt boobu moo dal Kouthia même bu fekkee kaddu yi Kouthia yëkkati am ñu mu ci tudd même bu ko Jamra rafetluwul sax parce que ñooñu dañuy am njaboot nekk ay maire de famille et cetera même bu ñu ko rafetul sax ki gën a bon taxawaay ci mbir mi mooy ki ko enregistré def na lu lâche te Kouthia maa ngi lay yëgal ne bu la neexee soo amee jot semaine prochaine ñu jël contact dinañ ko poursuivre au plan pénal parce que la loi protège le droit du citoyen d'avoir le droit à la préservation de données personnelles loolu la waral ñu créer CDP te soxna Awa Ndiaye jiite ko la la loi protège également koo xam ne da nga wax ak moom mu di la enregistrer sans sans ton autorisation loo tax état bi créé la DSI la division spéciale de la cybercriminalité yow xam na danga nga bëri yërmande rek waaye bu la neexee semaine prochaine ñu poursuivre ko ma woo maître Moussa Sarr parce que daf la enregistré te yëgu ko voilà di la lu nag. di masalu tamit ñi nga xam ne tudd nañ leen ci sa euh, wax ak euh, soxna si ñoom it Amina Poté di masalu Viviane ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ku nekk ci ñun matoo da ngay tarxiis di juum waaye ndaw si loolu mu la def def na lu ñaaw waaw kooku la Sénégal yëpp war a xalab yow nag ku baax nga ku jub nga ku bëgg nit nga te fii ba ba ñuy sàngoo suuf lii nga liggéeyal Jamra ba président Macky Sall ànd seeg yow daal di supprimer Jakarta ci école yi sa liggéey la père famille yu bari yu seen doom mucc si Jakarta yàlla ak sa taxawaay la moo tax presse baa ngi nii dima ma déglu dama leen wanoon sa photo ñuy nuyoonte maag yow ma ne le 13 février Jamra dafa officialiser adhésion Kouthia ci Jamra waaye Kouthia ba mu duggee Jamra c'était le 18 septembre 2015 ba ñu yàlla mayee ndam ci Jakarta Kouthia du noonu sànnil quelque baat gaa yi ngi lay déglu ba xëy ba fii. bisimilah. maa ngi leen di remercier ñëpp. waaw. dina wax la. waaw. ak euh, jigéen moom rek. dëgg la. waaw yàlla baax na parce que tamit euh, nit ki boo ko takkee ci faratu sunu Muhammad. dëgg la. ko da ko takk rek xamoon ne moom amour boobu nekkul woon sincère. Mm-hmm. parce que bu sincère woon du jël euh, léegi bi ngeen commencé waxtaan da koy. bu ngeen di sëy. dëgg la mu ngi lay mu ngi lay yëttu. Mm-hmm. kon soo doon soo daan que dafa am tamit euh, nekkoon tamit. Mm-hmm. waaw ba découvrir daal ci koom yooyu yëpp ma nga see bañ a dugg bàyyil ba ñu toog ma ak yow. waaw waaw mm-hmm. tey tey la la Jamra gën a fonk nag incha allah. tax ñu dugg foofu c'est parce que dañu bëgg a euh, joxe un bon exemple. communication. Mm. Euh, moo tax boo xoolee suñu ligne éditoriale émission. oui amul benn clip ci jaar boo xam ne dafa am ay euh, vestimentaires yu décent yu ci am. dëgg la. du dul chanson envers le prophète Mohamed. Mm, mm. boo tapee boo tapee émission ci à deux mille douze ba deux mille vingt trois. waaw amul benn clip ci jaar boo xam ne woy mu fa leen lu ñu leen di. ñu commencé. les hommes religieux lañu njëkk nuyu ça prend quinze minutes de cinquante deux minutes la. c' ça. donc euh, euh, je pense que ne ci ligne mooy fexe rek ba xale yi. benn ñu xam kilifa diine nekk ci réew mm-hmm. bu fekkee da ngay dafa intéressé balaa ngay commencé tu prends quinze minutes di tudd tous les marabouts du pays dans les recoins et coins du Sénégal. exactement. avant ngay egg ci li tax ñoom ñu toog bu yàggee dañuy xam yëpp ba pare nag yow ñu xam ne message yi ngay parce que quand l' actualité est chaude ñu dañ koy sucré. dëgg la ba nit ñi mun ko consommer nga xam ne du am benn danger. absolument ñun daal suñu ligne éditoriale mooy éduquer. Mm-hmm. enseigner et vraiment pour tamit. Euh, mm-hmm. sensibiliser tamit puis wàcce tension Sénégal. dëgg la seen dara rayante ñu def rayante euh, boobu ñu def ko en scène comique nga xam ne. Mm-hmm. après Sénégal dañuy banaliser loolu ba en fin de compte. Euh, tension bi day wàccee. dëgg la daal mooy suñu engagement ci biir jàmm ci côté média. incha allah donc membre lañu donc ñun incha allah ah, loolu la maa nga rek euh, ne lii wax. waaw léegi gis nga gis nga Kouthia. Kouthia. waaw euh, wax di sax dafa am sama benn jarbaat bu la fan bi coow li jibee. waaw ne waa tonton waa affaire Kouthia bi ko ndaw si def ñaaw na de. waa yow mbaa mbaa doo ci mucc ndax yow da nga bëri wax. yaa ngi ci téléphone yi yaa ngi ci nangam ma ne ko jarbaat na sa xel dal mu ne ma ah lu tax ma ne ko loolu dama ko réglé depuis longtemps mu ne ma ah noo ko réglé enregistrement kii lay enregistré du la de ma ne ko ah bàyyil ma la naka ko réglé mu ne ma noo ko réglé ma ne ko gis nga ni bu ma toogee wal fajiri 2S wala beneen télé wala TFM di mbel mbeli ma ne ko na may toogee nekk à l'aise en dehors de ces émissions là bu ma nit wooyee téléphone su may wax ak moom maa ngi jàpp ne maa ngi toog télé di wax bu ko defee mantalement danaa xam sama wax nu mu koy orienté mu ne ma ah ma ne ko c'est la meilleure parade ma ne ko lu ma wax ak ni téléphone mën naa taxaw ci diggu penc mi répété ko euh, léegi ku caa yow loolu laa lay dénk ndax yow da sa xol bi dara new ji yow da nga jàppee ñëpp comme sa bopp danga nga woyof ba pare da nga rafet njort bu mu wëpp léegi dama bëgg nga gànnaayoo lii ma wax suma jarbaat bi kooy waxalati télé wala euh, euh, téléphone jàppal ne yaa ngi toog ci diggu télé ba di wax ak waa Sénégal. bu ko defee booy wax yàlla lay orienté. ci loo war a biral ci sa kàddu ak loo war a ñàkk biral alors léegi nag euh, j'ai dit partout ku suñu partenariat ak yow tey la gën a dëgër benn journaliste ne ma pourquoi ma ne ko pour deux raisons Kouthia moo tax ba Jamra am ndam. ba Macky Sall jàppale ñu ci génn la l' arrêté ministériel du 18 septembre 2015 ñu interdire Jakarta bi doon mandiloo xale yi ci école yi ma ne ko deuxième raison bi tax Jamra tey la gën a jàpp euh, Kouthia Kouthia dafa am une ligne éditoriale ci Kouthia Show bu niroog bu Jamra d' abord balaa émission am di commencé day nuyu xalifa diine yëpp loolu lu rafet la bu Touba ak Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène ak Medina laa Layène ba ci église bi ñaareel ba mooy le contenu de l'émission doo gis mu Kouthia di futti jigéen wala Kouthia di ñàkk teggin di xotti war ma jigéen wala Kouthia di yëkkati ay kàddoom di def de la pornographie verbale ma ne ko nous avons la même ligne éditoriale voilà ma ne lii yàlla nañu gaaw a tourner la page gas ko suul waaw nga reprendre tes activités normales waaye y'a aucun problème nous sommes à tes côtés ñu ngi lay ñaanal euh, amul jullit bu dul am nattu waaye ndaw soosu def na lu ñaaw ba fi ñaaw yem voilà ndax yow yow xam nga gàttoo xel bu day ni dem en public di wax ay kaddu yu demee noonu kon da da nga waxtaan ak moom dans le cadre privé waaye moom moo nekkul ku digne de confiance voilà alors kon nag euh, euh, moi je suis confiant parce que je sais que tu as un mental d'acier te doo doo doo doo kii doo doo déprimer doo perdre doo perdre sa sa sa stabilité loolu rek moo tax suma xel dal waaye dama ne woon dama lay woo rek parce que y' a de journaux yi naan Kouthia Kouthia membre jam la de waaye lii mu def nag lii mu des na moo tax nag loo tax nag léegi comme que dañu wax ne euh, nettali ci làmmiñu borom la daxee moo tax ñu ngi nii toog ma daal di ko bës bës main libre bi gis nga wax wax nga wax ju rafet te Kouthia ba woon démb la ñu gis nga ne la da am question bu question yi bari nag laaj leen balaa ngeen ko fiy piégé waat benn question rek a ci waxal. Euh, Kouthia lan ngay répliquer ci sortie bu Amina Poté bi li mu wax yépp dëgg la da ngeen am jaar-jaar boobu wala dafa nekk loo xamante ni daf ko créer entreprise. Mm-hmm. ñaareelu question par benn. Mm-hmm. naa nee na seetaanu ko agent jël deuxième question. dañu bëggoon xam ndax li waral li nga xamante ne moo di sa émission bi dawul foofu ci waaw nee lu tax Kouthia Show jàllul tey. ak démb danga ah, da nga ah waaw loolu am na solo loolu am na solo waa kon ku ca. Euh, waa kon ku ca. waaw kon léegi dañ lay bàyyi nga eggali sa ziar. waaye léegi booy ñëw dakaar rek na nga ma woo am nañu lu ñu waxtaan waxtaan bu yaatu bu ñu war a mag yow. du yaa ngeeg sama numéro. waa kay yal na la yàlla sàmm. waa kay jërëjëf.